wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat. ñu ngi fii ci seesu Touba Ca Kanam. di jiital ci nuyoo bi Serigne Mamour ak ñi ma fekk soxna Ami ak soxna Maam Say jàllale ñu nuyoo bi ci ñi fi nekk ñëpp di leen wax ne dañuy soññe rek ci liggéey bi nga xamante ne que ñun ñoo ci war a jiitu ñëpp ndax dëkk bi dëkku Sëñ Touba la ñuy tudd tudd Sëñ Touba te ak taal bi moom loo ci bokk-bokk rek taal bi rek moo la ciy jariñ jariñ gi nag mooy dëkk bi ñoo ko dëkkee ku fi ñëw ñun la fekk lu fi waaye def ñun la ko defal kon ñu ngi soññ ñëpp ñu góor góorgóorlu li ñuy wax rek li sëñ Isaaxa sama sëriñ di wax naan wax bi du ma du mën a déglu ndax nee na ko ci gën a amal solo mooy laaj luñ man def ko fuñ xam nee na li ñuy laaj bariwut te fi ñuy def gis nañ ko kon loolu rek mooy mooy liggéey bi ñun nag liñ fas yéene mooy sëñ bi la ñuy fu mu ne fuñ koy liggéeyal rek ñu def fa suñu alal ndax kenn xamul fu mu nekk waaye fii nga xam ne moom fi la nit ñi ne dëkk bi mu gënoon a bëgg dëkk mooy fii te yàlla may nañu dëkke ko kon nañ ko ci jàppale ci lépp lu koy demee kanam di sant yàlla bu baax nag dunu yàlla wal ñëbul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal ñëbul Sëriñ Tuuba ñu doon ay taalibe tey jina ñu ànd soxna Ami Mbàkke mi topp ginnaaw sëñ Maam Mor fas yéene ànd ak moom liggéey Sëriñ Tuuba bi fas yéene liggéey Sëriñ Tuuba liggéey bu yar ndax liggéey Sëriñ Tuuba rek la mën du def du kon nag ñu fas yéene ànd ak sëñ Maam kanam bi fas fa ànd ak moom yéene ci ak sax daak ak liggéey sëñ Touba moom am ci nam mu ko bëggee ci laaj seen xadim euh, ñuy wax ne blog yi jëloon nañ cinquante reçu cinquante blog ak euh, cent cartes de membre ak vingt reçu yu douze mille loolu lañ jëloon total bi nekkoon trois millions deux cent quarante mille francs moom la ñu reversé tey trois millions deux cent quarante mille moom la ñu di ñaan yàlla nag lii ñu gën cee takk sunu laxasaay gën cee góorgóorlu ndax lu waaye def rek lu dul liggéeyal Tuubaa rek defoo dara kon maa ngi soññ sama moroom jigéen ñi sama waa koñ sama waa mbootaay yi ñu gën a góorgóorlu feddal laxasaay yi te jàpp nag te bàyyi te xam ne lii rek moo fi nekk. di wax sama mbokki caafi yi nag ngeen góorgóorlu génn fa seen ak ci bolo ndax man yaakaar naa lu ma leen woo rek war ngeen cee mën a wuñ si ndax lamp yi ma njëkk a taal caaween soxna Ami moo ma ko indi muy lamp sareet juróomi lamp kon yëkkati sëñ Abdou Karim indi laanu fa ay courant kon lu ma leen woo rek war ngeen cee wuy maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant soxna Ami bu baax a baax di ko siyaare bu baax. di jiital ci nuyoo bi Serigne Abibou mi nga xamante ne bi mooy jëwrinu liggéey bi di ci toftal Serigne Mamor mi nga xamante ne bi euh, moom la ci àndal muy président association bi ñu ñëwoon fi tey indi suñu barkeelu euh, ni ñu ko xamee euh, ci liggéey Touba ci kanam bi ñu jëloon ci ay bloc ay reçu ak ay carte de membre mu tolloon ci valeur trois millions deux cent quarante ñu ko doon jébal tey Serigne Mamor bi nga xamante ne moo ko sasoon ndaxte moom lañ ci jàppale donte ñi ngi ci àndal ñëpp ñi ngi ci daan yëngatu wante nag raison yi tax ñu gën a taxaw ci wetam euh, moo taxoon ñu dool jëloon loo xamante ne bi dañ ko sasoo woon ci euh, kuréel gu ñu tuddee ànd jàppale Serigne Mamour ci liggéey bi donc ci début mois de juillet lañ ko jëloon euh, jaay nañ ko delloosiku ko fas yéene tamit jëlaat mën ko tasaarewaat surtout ci gan yi ñëw ci màggal gi Euh, loolu nag liñ ci jublu mooy ni ñu xameen Touba ci kanam euh, ni mu taxawee ci wetu population yi bëri na ci loo xamante ni bi tey ay réalisation la ci dëkk bi euh, ñu ko doon xaar ci état comme état mënul yépp nag association yu mel nii nga xamante ni bi dañuy nekk ci wetu askan wi ci seen ay soxla ñu leen ci jàppale ci lu mënul ñàkk gis nañ leen ci tal yi gis nañ leen ci hôpitaux yi gis nañ leen ci centre de formation yi gis nañ leen ci daara yi gis nañ leen ci eh, activité sociale yi dimbale nit ñi nga xamante ni bi ay néew ju doole lañ gis nañ leen ci faj gis nañ leen ci mbënd mi surtout temps yi nga xamante ne bi gis nañ ndox mi ni mu demee ci dëkk bi loolu yëpp nag ay moyen ñoo koy def moyen yooyu nag niñ koy waxee ñoom seen slogan bi laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam muy lu am solo ñu ciy soññi suñu bopp di ci soññi mbokk taalibe yëpp yi nga xamante ne bi dëkk bi ñoo na leen parce que sëriñ bi euh, bi muy bind di sabablu di ñaan boromam am dëkk boo xamante ne bi day mucc ayib euh, du woon xaaru woon jinne yi def ko ñun taalibe yi nga xamante ne bi dañuy woowee suñu bopp ay njabootu sëriñ Tuuba ñun taalibe yi nga xam dañu bàyyi lépp li suñu maam yi amoon ñëw wuy si wooteem bi ñoo ci war a jiitu ñattee ma nag defe naa ne kenn ku nekk mën na ko ku mën lu ko ëppit nga def ko ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp ñi nga xamante ne bi tey li ñu fi indi def nañ ci seen ñaq eh, suñu borom ful ko ba mu dem ci seen njaboot di soññiwaat ñëpp li nga xamante ne bi mooy eh, cotisation yi eh, taxaw ci wetu Touba ca kanam nga xamante ne bi dëkk bi tey ni ñu koy xamee ñu ne mooy deuxième ville ci Sénégal ginnaaw Dakar loolu ñun tey dañu am taxawaay buñ ci war a taxaw taxawaay boobu nag defe naa kenn jiituwu ci ñun ñi dëkke dëkk bi ndax luñ fi def ñu lañ ko defal. ci ganu màggal yi ñu ngi leen ciy sensibiliser waale ndax ni ma ko waxee bu ñu ñëwee tey ñu ngi ñuy wax mbënd mi defe naa li fi Touba ci kanam def bu ñu ko xeeb su fekkoon ne évacuer wuñu ndoxu taw yi bu ñu ñëwee gan ñi xëy na seen nekk waaye du yomb te képp koo xamante ne da ngaa wisi woote Cheikh Khadim bi war nga jàpp ci dëkkam bi. ndax ki bàyyi këram paas ñëw màggal si moo gën a metti te da ngay paas ñëw jaar ci ay tali jaar ci koñ yi euh, bu la fi jàngoro dabee nga dem ci hôpital yi nangam ki nangam ite yooyu yëpp nga xamante ne bi Touba ci kanam ci kon ñu ngi ciy soññi ñi ñuy wooye pèlerin nga xam ne bu ñu ñëwee ñaar téeméer bi ñuy def defal ko seen njaboot te ku mën a taggal sa njaboot yëpp tamit nga xamante ne bi euh, da nga koo jaayanteel Serigne Touba defe naa ne li ñu doon wax ko waaye defal ku ko defal loo mënul bu fay loolu la joom donc liggéey suñu maam amul lu ñuy rëccu yeex a def la xëy na buñ ci amee lu ñuy rëccu yeex ko tàmbali lañ ciy rëccu euh, te soññiwaat ñëpp di wax ne daal màggal gi moom li ñu waroon def mooy ku recevoir say gan buñ la bendeele ba pare fi nga toog nga génne sa kalpe rek cotiser sa njaboot ba nga bàyyi sa kër sax te màggal si woon ñu ngi sant ñëpp te di leen gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbokk yëpp te di leen siyaare bu baax a baax. mbokk yi fi teew di sunu mbokki taalibe sunu mbokki deret sunu mbokki bopp sunu waa kër rafetlu bu baax a baax nag taxawaay bi am na solo lool di leen sant ci turu bu Abibu Mbacke mi jiite Touba ci kanam ak sama tur ak turu kuréel gépp li waral nañ ci taay bi tey rek lu am solo la mooy sama mbokki bopp ak sama mbokki taalibe sama waa kër ñu am taxawaay ngir jàpp ci liggéey bi ci wàllu massification bi ak ci wàllu collecte bi ñëwoon fii nag bi ñu dooleel weeru mois de juillet bi ngir jaayante jël ay bolok euh, yóbbu ko jaayante ko ngir jëm Serigne Touba jàppe ko ci liggéey bi nag la ñu indi woon tey di ko dellu siwaat ngir jëlaat di lu bu baax na seen taxawaay ndax euh, ñu ko taxawal ñëpp sunu mbokk lañu sunu mbokki bopp nuñ ko waxe woon léegi suñu mbokki taalibe suñu mbokk deret suñu waa kër ndax soxna Muslim Mbàkke mii sama wet euh, sama mag la bokk ndey ak bàyyi soxna maam sëy mii sama doom bàyyi la soxna am mii sama soxna la ñii ñëpp sama mbokki taalibe lañu kon ñëpp sama mbokk lañ di rafet lu baax nag taxawaay bi di wax ne liggéey bi moom nii rek la ñu ñëpp Serigne Touba rek la ñu liggéeyal te liggéey bi Serigne nag képp ku la ci fekk si dafa dafa ñëw ngir jàppale rek nga yokk aw yiw moom tam mu ñëw amu yiw kon ñoo ngi ci woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp di wax ne daal na ñëpp def na ñoom ndax tuubaa ca kanam tuubaa la tuubaa nag murid yi la murid ñoo ko jëme kanam kon bu ko nekk toog rek jàpp ne danga ngaa war a toog rek seetaan ñëpp ñu ngi war a def jóg wax dox ba li nga xam ne moo tax liggéey bi mën a kanam mu gën a mu gën a jàppandi daal ñu ngi di gën a sant di leen gën a dolli di leen gën a ñaax liggéey sa Serigne Touba ndax moom rek rek ñun moo na fi dese kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax di am mbégte moo xam ne euh, mbégte mu meneen la moo xam ne euh, seen mbokki bopp ñoom fekk la seen liggéey dana sawarloo ndax dana wane ni it liggéey bi ñu la dénk ñoom nangu nañ ko ànd ak yow kon ñoo ngi woo mbokk yi nga xam ne ñoo des ñëpp rek bàyyiwuñ ci kenn sama wayjur ak ñëpp rek ñu ngi leen ci woo ak ñi nga xam ne fàtt nag rek eh, ziar soxna astum suñu Murtada mi nga xam ne tamit ci liggéey bi la bokk tey mu ñor ko lool moom it suñu bàjjan waaye téer mu ñëw fekk suñu ngir li ànd ñun ci liggéey bi ak ñu mel ne moom kon daal ñoo ngi woote comme ni ko mbokk yi waxee rek murid yëpp di leen sa sàkku ñoo ngi sàkk murid bu mën a doon boo ñëwee màggalu Touba ñoo ngi sas suñu bopp di la sas ñaari téeméer daf ko addi Serigne Touba ci liggéey bi ndax liggéey bi gën a mën a jëm kanam di wax nag liggéey bi moom euh, mi ngi mi ngi dox waaye nag mën naa gën a dox kon na ñëpp xam ne seen liggéey bopp Touba Ca Kanam génn kër moomu ko kenn nit moomu ko ku xas am carte membre te nangoo cotiser mën ngaa dem ba jiite ko kon lépp rek pas-pas la ak ndigal ak organisation kon daal ñoo ngi ci woo ñëpp bàyyiwun kenn di rafetluwaat seen teewaay ñëpp nag yàlla yàlla nangul leen seen tànk yi dafay leen aw yiw ba képp koo xam ne ñëw nga fii boo demee gisul yokk te sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom la ñu liggéeyal yàlla yàlla euh, def nu muy liggéey bu mu nangu ba ba liggéey fay na ko ba ba liggéey képp ko xam daal Tuubaa jëm na kanam nga xam ne sa loxo ma nga daal ñu ci woo ñëpp di ko yaatal nag di tallal ñëpp loxo bàyyiwuñ kenn sant bu baax a baax jërë ngeen jëf رسمها بجاي خير من أبا وجل إلهي مسكني طوبابات مثل رسمها بجاي خير من أبا